E suudu ma e, so ɗum waɗama tan tardugol wonan walla wasde yaade e, waawa wonde te emin mbiyanene hoɓɓenene kala gonɗo ɗo aɗa wawi yaade jubaya cakal ɗum jeya immigration aɗa wawi heɓde passeport oɗon gandi hikka nene alhamdulillah rabbil alamin ko gambia ɓuuri webde leydeji gonɗi e séraji amin ɗo foof ko gambia ɓuuri webde ko ɗum ɗon woni komin jiɗino haalande on alaji mawɗou diouf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi ak gungul ah, bàyyi nga benn point moo di ne kayiti lopitaan yëpp ci lopitaani nguur gi lañ ko eh, jël haali gonga eh, médical certificate o médical certificate o nene eh, kala dartowo ɗum ɗi nokkuji toon jahata ƴettoyade so wona ɗum sa yeehi to private clinique ji ɗin kayitaji ɗi ɓe jakkata ɗum kayitaji kayitaji eh, médical eh, no wiyete eh, private clinique ji ɗi ɓe ƴettata kala jiɗɗo médical certificate ya yaha l'hôpital uji mo ganduɗa ko l'hôpital laamu ngu on woni l'hôpital government o jaa ɗin nokkuji ɗin woni lim ko lim liman on ɗo ɗin nokkuji ko ɗon toon tan wawata heɓde haj manager GIA uh, eh, Ustaz Abdoulaye Diako jarama e yewtere welle eh, moƴƴe e Ustaz Jeeju joola kawnto miniti nanituta pour nga kaccañim kum fa pour l'hôpital o Kenya e hijilal o ñanta tala min tole kela kaytol soto anin jellem joola kango resi batal ani miniti kilim ba bannale <laughs> inchallah ah, wonende rege wala comme ñiñeme abaji lo wayta awtu fo ko ni le niile a ɓuumana ko reno e niile nak kaji ke rakole o way tuga baksolade o ko tonganda kola kom dal kati pingo e siga bara san je mengare pingo e sikila soosu onu je me mbe ro kabana ndif tok anu ba ko ngara so mbola ko mi poliklinik yami banjul mbawo to nu joɓeedi e nday nu joɓeedi liman street clinique yolil bo banjul jobe joɓe sérékunda yiloptana joli jami bajandi sandigay pour tok ko mbawa toon joɓe enda en ke birkama nomno joɓe birkama loptane birkama mbawa to tojani na ñoomin kana ko ko ñolola kammo ñoomi pour joɓe sew pour toko enda loptaneli pop mano mo jaɓaba farafeñe pon joɓe farafeñe health center mbano joɓe jara soma tojani kapan kala nom mba bansan mbawa to base bobu tutano tano jom dal pomon no baj pengu e kila ñamono barnak di kan loptano sikila so sati e eh, mansa mbujala jabe di kayta se semeti mo ke sumuta kola kulero ka jibe ke no ma jabe hije ko noon fo ko jopo be loftana setti mansa ko manko kayt kayit kala ko sike me si fejir ku ke me si feejir soko camem bare ku je baje boni ma nganya mon manja mo fan bola komi aɓe jaw ende me kayt banjon o jajaɓe dere kotal pon jottokuro pan wonu ɓaj kayit ko kala koko cam japan ko isti tuye ko mante ko jukeni leya dal bu juus bo man bu leero ɓaje ɓe naw foñinomi no jaɓe e loptane ko rew souleymane jonkun yami buyam mbaw to toja nañomin kan jaɓe e sew loptane lil mba tojani fara feñe no jaɓe afr afprc mba tok janin kapana keti bansan non jabe bansan mba oto base bare no mañ metu way tawani pilu nyaw gabaraw le tungo nuba jedu loptane ken ye kanto loptane ti mansa foku jobe ro ma wala ko sen aw je bet sikena skayit ko tiker ko sel jak ma mana ken nga sikore sek sa sos na foro ko eto kilo tuban jat no boñu o tuma fama wake ne ujiti mbedel office ti mo seniro man kane passeport ya dioro munata manomo gaba lañu bene ndi wayta wonu yablandi pa endaye di loptana si ugabaraw on namporo mu jitu mbejiyaye manka ñan puputo passeport ya diro mo kammi tatami mag munum rayadi kemi ka kololal be fulay fo ken inchallah man langa firma fi sen modou diouf euh, mala gen oustaz vraiment jeejo sa fo baadiŋol lo ye a loŋ euh, gambiyankolu jama jaman dalta ñin na ka fo ko last minute ka si fo waati labaŋol ye na Mm-hmm. woka kuolu dukkundile mm-hmm. eh, kata bake momoɓe min kela dron mm-hmm. nayila ta koytema don ñanta kaytol minu topatola yew kata bake wol topato kat dow kulle ñanta kela o kaytola watola kuoɓe na watolem eh, uh, wona rek ñaw baƴe sunke baba jaccama ban naye ke way tala sude sinde kobo kaccenga way tawa jiitimut yekumante ku sena kay bise ku jaw boot non la ko me caɓeɓe kana onona teblonkayta kola nane jikayta ko mbokoke dikono ñakkoɓe abulay kon anose wonu cam ñawa ka ngala bu jitu mu jaw sen mu pola ko jabe pam ya be hije nyan la ko rek be last minute non kit rego go nyu ambe ka mo neew pu to tok met ko waate lay wuji wuj jeeli mu geeli nu joni la pa ñe seli pop en ni la popi jueli yo jande jairing ye kan ken ma to fam fam yo for fu ke fo kane kam buik mo kam wakile mu geeli yal no pare ndele bo ngara bolil mambo wala jawi ne mambo jembe jayno insha e jaade kamen kayre lagal la kayre be idnillah amin ya rabbi allah e, jaajo liñ doon wax rek moo di ne ndaje teel koo xam ne nii rek e, oto bi egg na ci yow te nga xam ne da nga fas yéene dem soo defee sa fee rek kayit yi nga war a jël yëpp jël ko rek nem gën a gaawee nga dem e, joxe ko ngir nag nit ñi ñenn ñi dañoo toog li ñoo wax last minute toog ba nga xam ne nii waxtu wi jot na gaay soog a jóg soo moytu di nga tardé te loolu bugguñ ko ci képp ku xam ne nii rek sa yoon ñor na fas yéene gaa dem te fay na nga toppatoo sa kayit yi ni mu gën a gaawee nga dem joxe ko jiyaaye su ko defee nga toog nag déglu waxtu wi su neexee yàlla yeneen programmes dinañ leen xamal eh, li nga xam ne nii nag moo di eh, plé ni kañ lañ fi war a jógee ñaata kilo lañ leen war a may eh, ak itam place yi Madina naka la war a demee Màkka itam ak itam farata yi ponki ak yëpp dinañ ko waxtaan ak yéen incha allah nit ñi di jógee kon nag ñu ñaan yàlla rek ñu mottale ko ak sago eh, di leen gërëm di leen sant ci seen jotaay foofu yàlla mi buur di borom bi yal na yàlla sottal yëpp réew yi Gambie am ci ndam ujaaj yëpp ñi war a dem jógee fi ci jàmm joxe seen farata seen aj nangu ñu dellu si waat ci réew mi fi tam ci jàmm ñu ngi koo ñaan yàlla yàlla mun na lu ëppal loolu oustaz Ablaye Diako oustaz Ibrahima Jeeju ñu ngi leen di gërëm di leen sant eh, alaaji Modou Diouf la woon ba beneen programme dinañ fi dellu si waat gën a waxtaan ak yéen ci mbiri aj gi ni mu ren asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa yow daal foo dégg lu baax rek yaa ngi fa xanaa defaraat ci gamtal bi nga dégg ah. laa ilaha illallah gamtal dañ defaraat seen branches yi lu mel ni Bakaw Westfield Birkama Banjul ca Télégraphe dama ne Serekunda ak tamit kootu ca Sénégambia branches yëpp lañ defaraat. xanaa branches yëpp nag ñoo am internet. Ah, ah internet bi nag dafa am branches yu ko am lu mel ni Birkama Sénégambia. waaw Westfield ak Churchill's Town ñoo am yi nga xam ne mooy internet bi. internet bi ah speed bi nag naka la. <laughs> pare waxatu ko speed bi. macha allah kenn mënut a wax loolu gaaw gi <laughs> day mel ni day naaw. webcam bi nag bi ngay xool xool ma ma xool la ñu waxtaan boo amoon tàngat sax doo ko yëg yëpp air condition la. waaye Gamtel yéen a bari njëriñ jóg leen bu leen demati fenn ñëw leen Gamtel ci branche boo jot nag dugg fa toppatoo la ngay toppatoo def la ngay def mu gaaw ba dee ma ne gaaw rek. kuy bëre bëree la ko mën bëre billaahi yóbbante sa mbër galgal taw koo daan man maa leen wax lii yaay ministère gamteel rek la for your future is essential for everyone. This assures you quality education and a better future for your family and children. يخادعون الله Open a savings account today with Ajib and secure a bright future for you, your family and everyone. With Ajib, and a door to a world of endless opportunities. In life, our future is unpredictable. We are faced with life's natural circumstances such as death, disability or even sometimes involuntary retrenchment. This is why Takaful Gambia Limited brings to you Banka Takaful. Banka Takaful is a new and innovative product of Takaful Gambia Limited, guaranteeing you and your family compensation and protection for such occurrences. سواء Takaful Insurance Company Limited, caring and sharing.